Gabara King Gabara King Kabara King ñu ngay dóorante ñu ngay dóorante ñu ngay dóorante puus mu ngi koy puus di bañ na de King bañ na puus ba nee na ko duma génn ndax am ku ñu puus nga génn yaa ko tay de bañ na de day bañ a jël avertissement wax nga dëgg oh uppercut ba ko King dugal dal na King bañ ma gab da ko puus ñu ngay xeex eh, waay lii lan la waay eh, stade baa ngi toj Lamine ñëpp a ngi tàccu di ree waay combat bi jël King Gabar Gabar Gabar jël ko la bëgg Gabar da koo bëggee jël waaye King bañ na xoolal ni nuy dóorantee waaye li ya neex waay waaye bii komba King ak Gabar mbaa ko faqat eh, lamin Seck lamba ngi lambi King Gabar malik Ngom a ngay ree xool arbitre ba xool arbitre ba Malick Ngom mu ngay muuñ Malick kontaan na ci combat ba bay muuñ ah <laughs> baa ngay ree wax na dëgg lu reeloo war na laa reeloo fàqatante puusante doorante hyperkit waaye li neex ay rëjante ki nga gabar eh, ki nga gabar gabar gabar king king takk na ko waaye king takk na mboot mboot na ko king kong waay do lamin <laughs> <laughs> mooy bañ king kong kabar sing la ilaha coono waaye lii lan la nii lamin waaroo gay <laughs> arbitre ak nan bëre leen arbitre ñi dañoo son arbitre ñi dañoo son eh yab la ilaha illallah lamin lii lii ko reewut amooy bañ protestant <laughs> loolu mooy dama son Lamine waaye ji lamba neex gabar nee na dootul yor kër protest bi dóorante nañu de loolu de dal na loolu de dal ki koy dàq ki koy dàq waay li a neex waay ñu ngay dajente ñu ngay dajente ñu ngay dajente faqatante doorante hyperkit ñu ngay dajente door cib kol waay lamin lamin ji lamba neex xeex dangay ngay jël avertissement king Gabara ngi dox sa kaw jël na ko jël na ko daan na ko daan na ko daan na ko daan na ko bañ na king bañ na king kong bañ na waay bii combat neex waay bii combat neex Gabar jël na tàng ba dawal ko king résisté da koy pousse mu génn ñu tool avertissement wala king day bañ king bañ na suuf ba tey Gabar mu ngay ñam rek coono waaye bii combat neex Lamine lii mooy combat de man def naa ko ko man Babacar woy King gabar gagné ko par décision décision médicale ñaar général la ngay cëppi cëppi waaw waaw ñu ngay cëppi cëppi ñaari mbari yooyu ñaq nee na tey day ñaq jariñu tey ñu fàttali na première journée bi ñoom ñaar général moo gañe woon dongolo par décision médicale ñaq jariñu Pape Mbaye daanoon ku jël bu leer Malick ngi laaj siisam pare nga nga sufle na ñaq ngay arrière général ang ko toppa ak gauche ñaq jariñu droite ngemu lu weex général gauche ngemblu vert waaw waaw ñu ngay lewaatoo de mas nañoo bëre Demba Diop suuru combat guy gi nees lañ bëre woon général daan ko moo tax tey ñàkk force nay bëre revanche am Fallou Ndiaye boole leen ci tournoi général door na général door na ñàkk général a ngi door ñàkk général a ngi door ñàkk ñàkk jël na tànk ba ñàkk daan na ko dara amagul de général a ngi door ñàkk général a ngi door ñàkk général a ngi door ñàkk da seneral bëgg agressé wala général ak ñaq ñu ngi xeex de eh ñëw nañ ci ñun ñu ngi xeex ñu ngi xeex daan na la waaw seneral bërewul tey daa xeex si bërewoo de tey da nga xeex daan na ko ñakk jëli bu rëy général waaru na ñaq fayu na de Lamine ñaq fayu na tey de ñaq fayu na de ñaq fayu na lamin Lamine Sitor soufflé na ndongolo Pambaay waaw TFP ba général moom ñaq jariñu daan na ko ba mu ñibbi ñaar ñii nag kii moo daanoon ñaq jariñ moom Pambaay kii général bu Fass daanoon ko TFP bi du yomb ak Fallou Ndiaye ñu ngi lewaatoo ñaari mbërëntaan ñuy nuyu ñëpp di siyaar ñëpp ci Lutte TV point com Babacar ngi nuyu ñëpp ndeysaan di ñaanal ñëpp jàmm képp ko suivre site bi ñu ngi lay jaar di wax ne surtout lamb jaa ngi nii xibaaru lamb ji fii lay nekk fi ngeen koy gisati ko fi xamee Lamine moo ne si caméra bi lamb ji mën nga fee gis bëre bu doy lamb ji bu ñu taxaloo bëre dina am bëre bu garaaw ñaari mbërëntaane yi bëre ndongolo joge ca Mor Faram mu ko suñu papa Mor Faram ñu koy nuyu di ko siyaar di ko ñaanal jàmm Pape Mbaye moo ñu féete gos ndongo suñu droite yor ngembu bax bi moom ndongolo nekk écrit Sanjambur Sanjambur nekkoon mbër mu mag ci réew mi. Ndongo Lo waa Grand Médine yëpp amu ko ndikoo muy xale wane boppam ci lamb ba tax tey mu toll fii am na ñu masel ci làmb ndongo xaw na leen a raw li ko ko may mooy mën a bëreem am fulam am faydam ba tax tay mu dab ñoom général ñoom Pape Mbaye ñoom ña jariñu ne ci seen biir di bëreeg ñoom Pape Mbaye moom kenn du ko présenté digganteem ak ra ak soq fii la woon daaw diggante Pape Mbaye général ñaari yoon aller retour kenn du ko fàtte Pape Mbaye jën kayre fii la woon yaakaar naa kon ñaari mbër yi parcours bi ñu def am na solo Fallou boole leen ñoom ñaar ñuy war a bëree moo tax dinañ bëre ci TFP Fallou Ndiaye bi nag du mën a de waaw waaw bëre rek bëre rek bu ñu taqaloo dinañ bëre de ñu ngi jàppantey loxo taqay jàppantey loxo ku ne fixé sa morom ku nekk ngi fixé sa morom Papa Mbaye Ndongo Lo kii jóge Grand Médine kii jóge Guédiawaye Pape Mbaye ñàkk jariñu Lamine ndongo taxawaat na arbit ba nee na leen Sitor day wax ak ñoom avertissement verbal lamin bëre leen waaw Sitor soufflé na Sitor soufflé waat na ku ne jël nga ci ñàkk du ko jeexal xeex bëree koy jeexal de jàppante koy jeexal de Papa Mbaye ndongo loo laalante koy jeexal bëre de ndongo foog nga bëre de Papa Mbaye ma doo ñàkk a de du mën a ñàkk de yéen ñaar ñi bëre door lañ leen wax de yéen ñaar bu leen fàtte moom ngeen di def de bu leen ko jaawale ndongolo Papa Mbaye la de kii jóge Géejawaay ca Mor Fadam kii jóge Grand Médine sa Njambur Ndongo Lo féete droite di dox Papa féete gauche di dox Ndongo garde normal maanaam lox tànk gauche Papa Mbaye fausse garde garde droite waaw waaw ñu ngi xoolante rek ñoom ñaar seen bëre naxante lay doon dañoo mën a bëre ay xale bu ngeen jàppantewul du ngeen bëre de xeex ñamante nañu o oh, ndongo koy dóor ndongo loo dóor na pambay dóor yu dal dóor na ko dóor yu dal foofu ay droite yu saf la ko ñam waaye jàppante nañu léegi jàppante nañu de pambay xañ na ko ngemb ku ne sa morom xañ nga sa bopp sa morom wala xañ nga sa morom ngem wax nañ dëgg ñoo yey waaye ñam yooyu ko ndongo ñam léegi saf na saf na sap waaw cey lu xew lu xew dara amagul oh papa Mbaye Ndongo Lo danaa leen buñ bëree rek mu neex dafa daw di ko papa Mbaye fàq ko mu rëb plaqué takk na ko da koy daan tegal sees sukar bi wet Pro. waaye Lamine Seck Papa Mbaye daa mën a bëre bilaay dafa mën a bëre Papa Mbaye Ndongo Lo ñàkk na tournoi bi bu la neexee Ndongo Lo ñàkk na tournoi bi dan ko jël bu rëy Lamine da koo botti mu jaaxaan Lamine loolooy botti Lamine Lamine da koo botti Lamine Ndongo Lo Papa Mbaye botti na ko Lamine noon naa la Papa Mbaye nañu ko bàyyi xel Lamine Seck Papa Mbaye daa mën a bëree na ci tournoi bi de kon gars yi fii la woon ci stade Iba Mar Diop troisième journée TFP général ñàkk jariñu daan na ko Papa Mbaye botti na ndongoloo mu daanu li des di ngeen ko seetaan ci lutte tv point com ñu di leen jox dig daje rek beneen journée incha allahu rabbi